yasak. Kadayın yasak. Sisaytu. Atimaytu. Bambadayın yasak. Kadayın bamba Sisaytu. Atimaytu. Bambadayın yasak. Kadayın yasak. Sisaytu. Bambadayın yasak. Kadayın yasak. ci seetu ak ci moytu Bamba doy na sëkk da ak Jomaay ndax indil nañu loo xam ni xewal fi loo xam ni loo xam ni yar mag ñi yar ndaw ñi fi ñu toll nii jàmm ji ni ñooy yar na jëm kanam léegi nag léegi nag wallaay ñoom sant naa xooleen ni réew mi dale te Ousmane na gaañi ba nga xam ni <laughs> xanaa papaleer rek <laughs> na Ousmane Sonko li ma xam ci moom war daa yi yaayam ji ko ci moom Abdou Mbacke na ci dara gis nga bu fekkee nak naan am yambar laak am yambar daa sedd du yooyu du yooyu de ma ne du yooyu de dogalub yàlla moo ñëw malaayika ni deux bi dañ ko def un te un bi ñu def ko deux xam nga yëfi malaaka waaye ba ci kanam yi daal man man li ma xam lépp du ma ko wax man li ma xam wallahi parti de la vérité ci Serigne Saliou la soosoo ak Serigne Mourtada ña nga ca dëgg ña ca dëgg li kulli shay'in ajal te humuril insaan ya'muru bi tadrij gis ngeen Touba mënut a développer ni ñu ko bëggee sans partie de la vérité mënut a nekk abo nopil way non non il faut ngeen nop parce que xam ngeen ni coloniser giñ ñu coloniser ngeen partie de la vérité ngeen war ci bokk war ko yëkkati ki jëm fi ki jëm fa ki jëm fële te ma ñëw ma ñëw mañaw mañaw mañaw te fi ngeen jëm yépp gone yi ñëw ni rupture ñoom ñu war di leen a jàppale ci rupture bi parce que bu ñu leen ci jàppale rupture du am yow xam nga tubaab ils sont très forts bu ñu leen ci jàppalewul li fi ni fi nii fi gaañ yi nekkoon noonu lañ fi nekkee aw ñu jàppale leen pour ñu mën